bu ñu leen tuddee bu ñu ci tuddee ku mel ni sëñ Mbàkke wax naa ko léegi ñu ngi ko doon annoncé mais xam naa ni waxtu yi du ñu ko may muy koo xam ni ñoom ñëpp mën naa tënk seen soxla te mooy alxuraan ak lii rek gis ngeen comme mi ngi tabax fële ca Touba daara ju mag joo xam ni yaakaar naa réalisation bi ay millions yi millions yi millions la ñu war fa jàng mboolem fànni xam-xam yi ni mu ko amee fii ci ndakaaru muy Taysirul Asir mu di ko def fële ca Touba sëñ Abdou Latif moom itam nekk fii ci Géejawaay sañ Moussa itam moom itam nekk fii ñu ñoom ñëpp ñu booloo ci suqali xam-xam ak jàng kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, ñi nga xam ne itam ñoom la sëriñ Issa seexal seen seeni maam dañoo wax ni euh, ñoom ci biir kuréel gi lañ bokk waaye dañu booloowaat bi loolu jàllee ñu dajale seen àddiya ñi nga xam ne ñoom la sëñ Isaa seexal seen maam dañ bokk ci biir kuréel gi ñoom ñëpp dañu booloowaat ci seen biir dajale seen àddiya ngir jox ko waa euh, jamaaya bi muy lu am solo lu ama am solo mënuma koo ñàkk jàllale ndax lu am solo la lu rafet la ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam naa nga indi bu ko defee ñu jox ko euh, sëñ Ibrahima mi nga xam ne moo yor finance waaye daal yéen moom amel nañ leen ak cant goo xam ni euh, dañ leen koy beral ndax bokk gi ngeen ci bokk rek doy na waaye ngeen ni da ngeen a bëgg a feddali rafetal ànd bi doxoon diggante sëriñ Issa ak euh, taalibeem yooyule tax ngeen jaayante itam ci biir kuréel gi yëkkati àddee ji indi ko ngir jox ko waa jamaaya bi sëñ sëñ Ibrahima bisimilah nga ñëw. xam naa mi ngi noonu kon léegi nag ñi nga xam ne ñooy séddale livre yi ak téere yi mën nañu mën nañu waajal euh, am nañ fi itam ay annonce ku fi am lam bu réer ak defe naa yeneen ak yeneen mais nañ ko bind après ñu jàllale ko Serigne Moussa Dieng moom la ñuy dalal euh, mu ñëw yëkkati ay kàddu yu gàtt ngir ñu delloo njukkal lenn ci ay kilifa yi nga xam ni ñii ñu nag ñoom ñoo bokkoon liggéey bi ñii ñu daan ànd ci liggéey bi la di ko safoo danañ ko bàyyi mu yaatal bu ko defee sëñ am nga préparé xam naa ni bu sëñ Moussa noppee rek da ngay daal di ñëw ñu jox kili ñu waxtaan ci kilifa yi comme ñoom ñi ngi fi li des ci programme bi bariwul euh, te waxtu wi mi ngi jot xam naa dañuy tënk kàddu yépp ndax fu ñu jógee sori na te ñu bari war nañu dellu ñu ñaan rek bu ko defee ñu taaxiir lu tuuti ñu séddale waale téere yi ak livre yi wax naa ko léegi li ci vidéo yi moom lañ ci def ku mën a lire français di nga lire arabe noonu olof noonu donc lu am solo la balay loolu nag sëñ Moussa ñu dalal ko sëñ am mu préparé bismillah aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala wa saxaabatihi ajmain wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bu kilifa diine yi muy cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir di ñaan yàlla guddal fanam ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp di ci teg sëriñ Abdou Latif Diène mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Aïssa di ñaan moom it suñ borom guddalal ñu fanam te may ko ak wér te eggaleel ko ay naalam di bu baax sëñ Ibra Xujja Mbàkke di xalifab Cheikh Ahmadou Ndumbé Xabaan ak jabootam gu tedd gi mu yebal di nuyu kilifa yëpp ndax tey moom yaakaar naa ni ay gor rekk a fi teew ñëpp ay kilifa lañu kontaan nañ ci seen teewaay ñun nag li ñu fi taxoon taxaw mooy dafa am ay jëmm yoo xam ne dañoo bokkoon ak ñun liggéey bi te yàlla dogal am ci ñoo xam ne dañoo jiitu ji ñu leen ci defal hommage pour fàttaliku leen xam naa kilifa gi dañuy joxeel ab dog rek ñu ubbi ko defal leen ko ñaan bu ko defee ñu lim seeni tur ak li ñu mën a tënk ci ñoom ci gàttal waaw bismillah waaw sëriñ bi dafa wax ni ñu muslu ci seytaane julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam def ñeen fukki lixlaas buñ noppee ñu tëjewaat ko ci salaatu ala nabi ñaan yàlla nee na ci barkeb see Aysa Jenn ak barkeb see Ahmadu Ndumbe Xabbaan mi nga xam ne ñoom lañ boole bis bi tey mboolem ñii ñuy defal hommage ak ñi leen jiitu woon barzaq ak ñi war a ñëw seen ginnaaw suñ borom xarañ leen na te yokk seeni leer te jéggal leen ci barkeb see Aysa barkeb see Ahmadu kasa baarakallah amin yal na yàlla nangu ñaan allahuma ijal hasi lqiraata mutaqab mut hasi lqiraata sawaaban li jamii arwaah mutahira jaay si naamadi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñi ñu doon defal hommage tey nag ay tur la ñu joxoon te ci jiitu woon di sëñ Cheikh Mbacke ibnu Sëriñ Abdourahmane Mbacke ñu gën koo xam ci borom dër bi sëñ Cheikh borom dër bi sëñ Cheikh borom dër bi kenn dootu ko presente nit ñi ndax ñëpp xam nañ ne mooy jëkk a nekk xalifab sëñ Abdoulahi borom dër bi ci diir bu yàgg lool. li tax nag ñu koy defalee fii hommage it lu mën a nekk la ndax bu ngeen xoolee ci documentaire yi jàlloon ca at bu njëkk ma euh, sëñ Mouhamadan Mbacke résumé na fa lu bëri ci boole gi nga xam ne sëñ Touba daf ko boole woon sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ak Cheikh Issa yàlla dogalee mu dem. sunu sëriñ la waaye daa mel ni it ci kër gi la bokk keneen ka ca topp di sëriñ seex jëmb faal sëriñ seex jëmb faal di nekkoon xalifa maam seex ibrahima faal te wax dëgg yàlla liggéey ci yoonu murid liggéey bu kenn mënta sikki sàkka yaakaar naa ne fàtte xaju fi moom it ci ñun doon ñaanal tey la bëgg koo fàttali ko waale nekk xalifa maam seex ibrahima faal fukki at nangam rek ak liggéey yu am solo li mu fiy liggéey doy na koo présenté yaakaar naa ne loolu doy na ndam yal yàlla xare ko àjjana ki ci des di sëriñ Cheikh Mbacke Aliou ak sëriñ Sidi Mbacke Aliou xam naa ne ñooñu nag question yi dina ci bari lool bari nañu leen di laaj te xamuñu leen ndax léeg-léeg nga dajeeg nit mu naa la ndekete Cheikh Issa daa am ay seex yu sant Mbacke aha kay am na seex yu sant Mbacke. ndax xam ngeen ni sëñ Issa Diène yàlla daf ko mayoon ni mu amee réussite ci wàllu réalisation matériel noonu la ko amee woon tamit ci réalisation humaine mooy yar ak tërbiya loolu dafa taxoon sëriñ tubaab wóolu ko wóolu koo xam ne daana jël ci ay niti boppam moom sëñ Touba di jox Cheikh Issa pour mu yar leen sëñ Aliou Mbacke mii tubaabu français la woon tubaab la woon boo xam ne France la dëkkoon moom mi ngi tuddoon Payar lycée beltasaar dale enre noonu la tuddoon woy juróom wu jigéen mi ngi tudd borosé adele maanaam adel bi mooy tur waaye borose la sant bu dee tubaab yi nag souvent tax diimal mat àqir dañ koy def seet lu waroon a jiitu ñu mujjal ko ginnaaw la ci des ñu ñu ñu ñu ñu yóbbu ko ca kanam waaye bor borosé euh, adel moom la soxna astu tuddoon léegi ñoom ndar lañ nekkoon ndax sëñ Aliou ab nessance am mi ngi ci euh, le 19 huitième mois mille mille mille neuf cent vingt waaw mille neuf cent deux ca Ndar foofu la sëñ Aliou juddoo waaye ba mu amee nag way juru euh, borom këru payaar mi gis ni soxna si mi ngi tàmbali intéressé wu ci diine l'islam loolaa sababoon mu jël ko pour làq jiwaat ko Paris ba mu ko yóbboo Paris soxna sa dafa dawaat jàpp ci loxob Seydina sëñ Aliyu mi muy tuutub tànk bu daw ñu daw fekk sëriñ Touba Njaareem jébbalu ci moom biñ jébbaloo ci moom mboole mag moo xam ni dégg nga ko ci yoonu murit mbaa bari na loolu ñoo xam ni sëriñ Touba yëkkati na nasaraan bi jaarale ko ci seen loxo ngir bëgg ñu yar ko waaye mënuñu ko supporter pour wax na ne la Cheikh Issa li taxoon Serigne Touba fonk ko du asaar dafa nekkoon nit ku am tolérance. di nit ku am xam-xam di nit ku yaatu dënn ñaare Serigne Touba sax daana jaarale leen na ci ci nit fekk dëgg dëgg objectif ba Cheikh Issa la ci jublu waaye day def bu tëbee tëb ni Issa rek ñu ni ah moom de magu fi rawu fi magu fi rawu fi waaye dana xam ne yàgg-yàgg aajo bi faju loxob Cheikh Issa dina ci dugg sëñ yi moomu bi mu ko jaaralee fa bari mënuñu koo yar su mu xaatul muridina te mooy soxna sëriñ bi ñoo ñëw ci sëñ bi ni ko asu mbàkk mi boo bañee mu dellu Paris di nga ko teg ci loxo Isa sëriñ Touba doo ko woo Cheikh Isa ndax yërëm leen ay tubaab yoo xam ne dañoo nekk ay nasaraan ñëw duub dugg ci yoonu lislaam ab te ku ne xam na ni bii a maanaam environnement bi bi ñu doon dund ca Paris ak bi ñu doon dund ci bal Bawol ñaari climat yu wuute lay doon ñu ni ko boo boo leen tegul ci loxo Cheikh Isa dana ñibbiwaat moo woo Cheikh Isa ni ko léegi damaa bëggoon nga yaral ma leen mu ne ko ah Mbàkke segam teg nga ko ci sama loxo day ñoom ñooy am soxla rek nuyu si la waaye bu dul loolu danañ wel ci kër gi bu dul loolu danañ wel ci kër gi Cheikh Issa tërbiye ko tasfiye ko tarxiye ko yëkkati oto boppam jox ko mu di ko ca tërbiya mu yëkkati doomam ju ñuy wax maam bu sa jenn may ko ko moo jur ab xalifaam sëñ Xaadim ñoom tey kon moom dama leen di wax ne ni mu réalisé ci matériel noonu la réalisé ci wàllu humain nit yi googu nekkoon ci moom nag ak expérience boobu nekkoon ci moom ak ubbiku googu loolu la mun woon a ñàkk ci wooteb Serigne Touba bi ci époque yooyu loolu mooy sababu ñu naan seex yi sant Mbàkke te bokk ci looloo leen ci indi kon ñooñu bu ñu leen defalee fii ñaan lu war la ndax ñooñu ci ñun lañ bokk muy sëñ seex ak sëñ siidi euh, ci hommage yi ba tey sëriñ Masamba Mbegere sëñ Masamba Mbegere xam ngeen ni sëtub sëñ Mahmoud Mbegere la woon sëtub sëñ Mahmoud Mbegere te sëñ Mahmoud Mbegere wóolu réew maam Cheikh Issa Diène la woon yaakaar naa ni màggalam gi mujjoon a def maam Cheikh Issa la ko jagleeloon man mii maag sëñ Ibrahima bee ñoom ñële la sëriñ bi yabaloon ci bi ñuy def seen avant première ginnaaw ba mu jógee ci màggal ga it mu yët ay xéewal yu bari fekk sëñ Abdou yi fa mu nekk ca ca Touba ànd ko délégation yóbbu ko fa wan ko ni ko dama laa siyaar si sàkku si fi ci yow ñaan waaye it dundalaale ci kóol rek sëñ Mahmoud Mbegere ak sëñ Aïssa Dieng kon moom it yaakaar naa ni taxawu fii fàttali ko ñaanal ko yàlla lu war la yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem naka noonu sëriñ atumaan Diagne sëriñ atumaan Atoumane Diagne xisbu tarxiya kooku yaakaar naa kenn du ko présenté di murid yi jàmbaar la joo xam ni musta tikkik laxasaayam mboolem ñim dajantal ci xalifa yi sëriñ Touba ñëpp làq na seen gërëm foo ko mos a ak der ngay séen ci ndiggam waaye nag dafa am bëgg gum bëggoon waa kër Cheikh Issa Diène ndax ay way juróom bu leen fàttali ni foofu lañ jóge daan ñëw daan ko topp si ci diggante celeeg foofu yépp dafa daan topp di seen màggal gi da ca daan ñëw di yëkkati aw ñaqam di ca def ñi ko xam ñëpp it wax nañ ni fu mu mos a gis nit ku sant Diène day taxaw ndax xam gu mu xam ne ay maamam Serigne Touba moo leen boole woon ak Cheikh Issa ndax xam nga moom euh, xabila bi sant ka ñooñu ñu am histoire lañ ci yoonu murit ndax ña nga jóge woon dëkk bu ñuy wax Agnam Sewel ca Fuuta biñ ñëwee yàlla dafa defoon ci seen làmmiñ ñoo am ijaaba lu ñu wax mu am ñi leen àttanoon Sénégal bariwut Sëriñ Tuubaa da na a xaaj ci digg bi benn bi mu téye leen bi ci des maam Cheikh Issa rek rek la ko jox moom lañ topp muy diggante Romnaan Cëli ak Romnaan ak fii Cële gi ci ak gi ci wetu Njenn la gan ñuy ay mbokk ak sëñ Moussa Ka werekaan benn famille lañu kon sëñ Atoumane jaañ bu melee noonu loolu laa xarwa laa xarwa maanaam ndax garab gu nekk la nga fa jebee rek la nga fa jiyee loolu moo fay moo fay mën a jebe waaw yal na yàlla yokkal nu leeram bu baax ñu ngi nuyu doom ji gis nañ ko fi léegi di ko ñaanal yàlla yal na saraxam yàgg ci seen seen loxo bokk na yit yi ñu defal hommage Baye Modou Diop Baye Modou Diop si Kambaaw moom mooy seesu jamaya bi réunion yi ñu amal ak waxtaan yaag yëpp foofu lañ koy defee te bala ñoo mosaana ñëw mbooloo lay doon waaye bala ñuy agsi lépp lu fa di teraanga wala xéewal dina ko fàggu nekk ku bëgg see Aïssa koo xam ni amut woon ci moom sago mooy way juru Serigne Ibrahima Diop mi nga xam ni tey moo jiite wàllu finance bi te nekk ADK ba fi ne it kóllëre gi ñu ngi koy wéyal lépp lu ñuy defati ci daayira bi wala ñu koy waxtaanee këram lañ koy defee si kàmbaaw ngir mottali ak moom kóllëre kon moom it ñu ngi ñaan yàlla xareel ko àjjana gisale ko sëriñam ba si Isaa Jeen radiyallahu anhu kon daal ci mbokk yi lii lañ amoon tuuti lu ñuy leeral muy ñi nga xam ne dañ leen a bindoon fii war a def ci ñoom hommage di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala tàbbal leen ci biir yërmandeem di jéggulu ñëpp nag ci kàddu yi bu fekkee am na ci lu déranger di ñaanal waa kër sëñ Ahmad Ndumbe gii tey feddali kóllëre suñu diggante ak ñoom di leen wax ni kontaan nañ bu baax ngeen santal nu suñu maam ak suñu kilifa yi nekk fële wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Moussa euh, ñiy joxe xéewal yi ak livre yi ba tey rek xam naa ni ñu ngi ci biir livre yi dina daj incha allah ndax euh, liñ ci war a defar bari na damaa xamul nag ndax kilifa yi jot nañ seen wàll ci téere yam déet bu fekkee jot nañ ci baax na euh, sëñ sama yaakaar naa am na kàddu bëggoon a jàllale gu ndaw euh, en sëñ am sëñ am waaw acca acca acca sëñ Abdou demal waaw sëñ sëñ sëñ Abdou jamiya bi doon ko jox karo yaakaar naa téye na ko noonu ñoom dañoo dajale ay yu tàkk te fas yéene topp ci ginnaaw jamiya bi bokk ak ñoom liggéey bi moom ñoom lañu wax ñu jox leen loolu ak ñu wax Mbaye Ndiaye ñu Mbaye communicateur moom ñu doon ko jox ak neexal bu dee ci saal rek mën naa agsi bu jóg incha allah man ngaa wéyal si kër. Serigne Diadia euh, jërëjëf euh, kon xam naa ni sëñ am. moom itam xam nañ ko bu baax a baax mu nekk fii ci Touba TV yaakaar naa seetaan ngeen émission bi ñu defoon te ñu koy ànd ak moom jamono bu nekk mën na yegg si sunu sunu xarit sunu soppe soxna may jenn sama rak sëñ Abdou Salaam ñu ngi ñu ngi lay jot li nuyoom waaw moom moo topp ci man <laughs> ñu ngi lay jot li nuyoom Euh, soxna maam jaara mu sëriñ muntaxa teewoon na fi waaye xam naa ni yitte yi moo tax daal dina yeeweku euh, moom itamit ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci kanam dana ñëw ci liste bi nga xam ne moo fi teew honorable député mi ngi fi xam naa dina ñëw ci yaatal ci loolu suñu am ñu bàyyi la rek nga yëkkati kàddu sëriñ bi ak euh, mbooloo mi bu ko defee ñu ñu ñu jàll ci liggéey bi bismillah